Pres Internasional Fatik Senegal Michel Aubert presse internationale Fatick ngi fi euh, Ndiob nek fi partenaire de la commune de Ndialgui ñëw fekkee si couve euh, final bi nga xamante ne mooy suñu première édition mu doon mbégte bu parce que ñëpp a ngi fi muy euh, des amis ñi nga xam des collègues maires ñu mun ci citer le maire de de mon ami vraiment le l'honorable député Ablaye Diagne sama ak euh, le maire de Mbelaka yónnee délégation le maire de Diawle yónnee délégation le ministre euh, maire de Fatik, chef de cabinet du président de la République Macky Sall yónnee fi délégation mais sama xarit le ministre Moïse Diardiegane Sarr yónnee fi délégation en tout cas Sénégal ñëpp a fi la fédération sénégalaise des sports travaille la direction des bourses les amis en tout cas tout le monde matale doo mun naa lim ñëpp bañ a juum mais guddi na te ma limee du ma matale guddi ni nag moo mu la ndenee ma bëgg fii ak at suñuy def coupe du maire ñu footballé ko ci gazon lumière yi tàppe ñu nga xam ne mun nañu wax bu fajar donc loolu bokk na ci li nga xam ne jeunesse Fatick jeunesse arrondissement Ndiob jeunesse commune Thiaré njal gi ak Jaxaaw ñu ngi ciy dox ndax démb rek wax naa ko le maire de jaxaw nee naa ko dans le cadre de l'intercommunalité dañoo war a am benni ASC boo xam ne dañ koy tuddee entente jaxaw Thiaré njal gi muy affilié wu à la ligue régionale de football de Fatick

dal di ñu may 4 kilomètres d'adduction d'eau, bo tiwo yi ñew nañ tay agent yi fu may wax ak yow ni ñu ngi sur le terrain ñu ngi koy mottali waaye euh, tamit électrification rurale on touche du bois parce que sur 30 villages on a 22 villages électrifiés lool yeb dañ koy santé, gërëmee ko le président Macky Sall bi nga xamné dafa jël ASER ak PUDC dugal ko fi commune Thiaré Ndialgui bo village yi yep ñu ngi samp poto yi ñu ngi samp di nga takk li pour courant am village yi nga xam amul courant PUDC ak ASER danañ ko jëlat waye tamit ANER jox nañu 200 lampadaires solaires yo xam ne yep ci nguuru Macky Sall la euh, ñëw fii ci commune Thiaré Ndialgui li ci dess nak amna village yo xam amaguñu mais la commune de Thiaré Ndialgui sur fonds propres mun na électrifier yenn village yi donc on va voir avec le conseil municipal les urgences fini ñu à l'heure ñu orienter ko foofu non. pauvre ci ko c'est nouvellement créé Lolu motax. c'est nouvellement créé te suñ koy évaluer aujourd'hui il va bousculer les premières les cinq les cinq premières places donc lolu aussi mo ñu dal ci suñu arrondissement bi communes yu bari ay commune yu bess lañ lu bari amuñ ko mais avec les maires que nous avons. Euh, on a le plus jeune maire de la commune du Sénégal. On a le président de l'AMS aussi dans l'arrondissement de Ndiop. Donc, nous sommes am solo. Donc, avec le président de l'AMS, avec les maires aussi, Yifinek, on devons changer complètement le visage de l'arrondissement de Ndiop. Stade Yangifi, route Yangifi, mais li gens am solo, mais les, les beaux sociaux de base, électricité et ndox. Parce que aujourd'hui, euh, ce c'est avec euh, le quatrième secteur, parce qu'aujourd'hui, on parle du numérique comme le quatrième secteur, c'est extrêmement important. Donc, il faut que l'électricité, parce que le beurre ordinateur lañ koy pour ñu il faut que nous am la connexion donc côté Bobo aussi il faut que nous ayons de telle sorte que ñu am euh, l'accès universel à l'électricité pour tout l'arrondissement de Ndiop Nous avons un objectif nous mu donner un objectif Du côté électricité nous la donner un objectif aussi du côté euh, normé, l'approvisionnement à en eau mais au-delà de ça l'emploi des jeunes surtout L'emploi des jeunes donc lolo aussi man dama ci bëgg ñu taxaw même le président le FERA amna a lu les mairies il le le problème le programme xew ndaw ñi mais japp a aussi les maires nañu gëna que xëcc lu bëri pour mën a jàppale ndaw ñi pour ñu mën a am fu ñuy xëy parce que ndaw ñi suñu amee lu ñuy lu ñuy am par mois rek dinañ mën a jàppale njaboot yi te yaakaar naa ne problème yi dina gën a wàññeeku donc côté boobu aussi jàpp naa ne dinañ ci gën a travailler di leen gërëm di leen sant di sant tout l'arrondissement de Ndiop xam ne ñun ñëpp nañu doon benn laxasoo bàyyi question politique yi xool l'intérêt général te l'intérêt général mooy le développement de l'arrondissement. nga intercommunalité bi monsieur le maire Badara Ndiaye wax dafa am solo. déjà rek partenaires yi il faut que communes yi au minimum ngeen trois communes intercommunalité aussi dafa nekk en bonne place ci acte 3 de la décentralisation parce que xam ngeen ne acte de la décentralisation président de la république initié depuis le conseil des ministres décentralisé bi mu en 2012 à Saint-Louis ci la euh, annoncé une réforme fondamentale pour des collectivités locales bi ñu de la décentralisation ci intercommunalité daf ci am place bu am importance et donc ñun en tant que vraiment maire de différentes communes dañu war a boole suñuy suñuy doole tey moom am na nu mu taxawé côté sport ñun ñëpp buñu bolo xeyna xëy na commune Jaxaw commune Caari Njal gi commune Diawle commune Mbella Kajaw et ñun ñëpp war nañu mëna am ay stade digne de son nom yeneen aspect yo xamné war nañ cee mun jouer war nañ cee mën liggéey ci intercommunalité war nañ def en sorte que tay bu ñu génnee dem di wuti ñun ñëpp ñu booloo nekk benn wuti ay partenaires parce que nag ñun ndimbal bi ñu état di jox rek doyut parce que état daf lay gunge ci ay fonds de dotation ay fonds de concours mais coopération décentralisée moom mooy suqali dëkk te partenaires yi pour ñu jàppale la man kese su ma demee du sotti il faut que ma ànd ak moom ànd ak meeru Ndiob ànd ak meeru jawle et cetera bu ñu demee dinañ gëna am ci ñun confiance. waaw coopération décentralisée tumuranke na parce que man commune bi ma nekk caare bii tamit mosuma fi dégg ay partenaires yu ñëw investir te pourtant ñu ngi koy def ci yeneen communes yi. mais bu ñu booloo loolu yëpp dina yomb te inshallah allah xam naa ne dina dina dina soti ndax vraiment on s'entend très bien que ça soit muy Badara Ndiaye que ça soit le maire de diawle que ça soit le maire de Ndiop ñu ñëpp benn lañ quoi et donc loolu yaakaar naa ne dina soti inshallah Thank you.